seen bëgg-bëgg Digital Store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Core X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di ip boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci sambi junni sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di doon di leen nuyuwaat àggale kem waxtu wi ñu ngi tolloon ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu dafa wax ne way jullit bu góor bi ak way jullit bu jigéen bi wala way gëm bu góor bi bu jigéen bi yàlla da teg nattu ci seen bopp waaye bu leen tegee nattu ñu muñ nattu ba yàlla ndekete muñ googu ñu ko doon muñ ndax nit ki mën na nekk ci àdduna yàlla teg ko ay nattu mu delloo nattu bi gëm yàlla sabablu faju lu ne mu def ko waaye mu xëy xëy rek suñ borom moom ko ndekete borom booba suñ borom da koo bëggoon a raxas ci ay bàkkaar naka noonu tamit way julit bu góor bi ak euh, way euh, gëm bu góor bi ak bu jigéen bi suñ borom mën naa mën naa teg nattu ci njabootam lu mel ne mu yar njabootam wala kenn ci ñoom mu yar leen fa mu jar njaboot gi yar leen fam leen war a yare wala sax kenn ci njaboot gi yàlla teg ko ci nattu mu def li mu war a def yëpp waaye suñ borom rek ñëw ay dogalam mu gëm ko ba mu dogal boobu ndekete loolu yëpp suñu borom dafa bëggoon a raxas ci ay bakkaar naka noonu wa maalihi nit ki mën naa am alal yàlla natt ko ci alalam mu dem ba yàgg amatul. waaye mu gëm loolu yépp mu delloo ko ci dogal suñ boroom ndekete boobu suñ borom da koo bëggoon a raxas ci ay bàkkaar lu moo tax mu ne maa yazaalul balaau bil mumin wal mumina fi nafsihi wa waladihi wa maalihi xatta yalqa allahu taala wa maa alayhi xatia yàlla daal di séppi ko ci ay bàkkaar raxas ko ci ay bàkkaar ba mu mel ni xale boo xam ne dafay door judd ci ndeyam rawaahu at-Tirmizi mu mel ni euh, kon dañu tomb bu njëkk bi ñu a wax ci ñetti xeet yi ñu njëkkoon a wax mooy ñetti façon muñ yi mooy asabru ala taat kon a ala ama sabru ala taat fa wa sabru na ala shadait mooy muñ metit yi ndax bakkanu doomu aadama ci natiiram toujours dafay daw lu ëpp lu mbëri ci ay mën ci xeeti jaamu yàlla yi jiit bakkan bi daf koy not day tee julle day te koy dem sax ba tee koo julli loolu yëpp te dawal lu lul ak tayal moo koy dugg ak bëgg a nofl naka noonu tamit bakkan bi noonu ko noonu mu koy defee ci julli noonu la koy defee ci zakkaat ndax nit ki war naa war a xëy war a génne ci ki ñi nga war a génne asaka ak nay jàpp ko ba du ko génne te suñ borom subhanahu wa taala mooy waxoon ne xuz min amwalikum sadaqa tutahirukum wa tuzakkihim biha xuz min walekum génne leen ci seen alal ab xaaj boo xam ne bu ngeen ko génnee tutahirukum daf leen di laabal wa tuzakkihim biha te daf leen di teyal kon nit ki boo dee génne asaka bu mu wax ne man kat sama alal ji su ma ci génnee asaka dootuma dootuma amati dara waaye la ngay génne asaka lu mu tuuti tuuti la ca des alal boobu suñu borom subhaanahu wa koy barkeel waaye boo bañee nag war a génne asaka te génne ko dana yàqu ci sa façon bu mu mën a doon mën naa mën nañ ko sàcc wala mu réer wala mu lakk yooyu yëpp mën na koo doon waaye soo génnee asaka nag yàlla dafay gën a barkeel alal ji mu gën a bari kon génne bi nit ki loolu moo tax muñ bi nga xamante ni moo tax ba nit ki nay jàpp ko ba bu waree génne asaka alal jëm mu jox ko seeni boroom loolu suñ borom ne ko ci bindal ay tuyaaba yu bare bari comme ni ko sëñ bi waxee ci ab sablu ala taat yaatu la naka noonu wa takrahu sawmu bi sababi mahabbatil fitri nee na tamit bakkan dana tax nit ki bu waree woor te muñul maanam bëgg lekk ak ragal xiif Hmm? mooy te ba ah, ah, muñ bi nga xamante ni moom la mooy tere bakkan bi ba du def loolu wa sabru ala taati sabrun ala shadaid mu ne kon muñ ci topp yàlla yi mbir muy muñ bi nga xam ne mooy muy jafe-jafe kon aji muñ ji ah, day def li nga xam ne moom la ko su borom subhanahu wa taala def oo digal comme ni ko ko suñ borom comme ni ko suñ borom waxee ci alquran wa ma sabruka illa billah wa xaala jalla wa ala aydan wasbir li xukmi rabbika kama an allaha yitnaha an diddihi naka doom te ni ko suñ borom sante mu muñ noonu la ko teree safaan bi muy yàkkamti قال له تعالى واصطبر كما صبر أولو العظم من الرسل ولا تستعجل لهم وقوله جل وعلا وقال جل قوله جل وعلا ولكن ولا تكن mu ne ko na muñ comme ni ulul azmi mu ñëwoon ulul azmi nag mooy yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa yonent yàlla Nuux yonent yàlla Ibrahima ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen yonent bu ñoom ulul azmi mooy yonent yooyu mu tudd façon natt bu nekk suñ borom nattu ne leen ko waaye teewul dañ koo muñ moo tax innal am inna am kulluhu xayr yonent bi eh, sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man de maa ngi yéemu ci mbir eh, ay way gëm bi ñu ne ko yonent bi sallallahu lan ngay yéemu ci ay mbiram mu ni way gëm kat mbiram yëpp aw yiw la wala zalika li ahadin illa lil mu'min mu ne kenn amul lu dul loolu ku gëm rek in asaabathu sarra bu ko lu neex dalee chakara dafay sant way muñ mooy way gëm bi saa yu amee lu neex rek da koy delloo ci suñ borom xam ne suñ borom sant ko ndax suñ borom moo wax ne in chakartum azidannakum wa in wala in kafartum inna azabi la shadid lu moo tax mu ne kon way gëm bi su ko eh, lu neex dalee bu amee lu neex day sant yàlla bokk na ci eh, ngëneel yi nga xamee ne mooy nga neelu muñ inna allaha yudaa'ifu ajra sabirin ala gayrihim yàlla dafay ful fayuk way muñ ñi ci seen walis ñoom ñeneen ñu dul ñoom wa yuwaffihim ajrahum daf leen di dégg ak pay bi xayri xisaab ci fay goo xam ne amul app fa kullu amalin yu'rafu sawaabuhu illa ne benn jëf bu nekk am na yool waaye ba mu des Euh, muñ moom kenn xamul yoolam àpp yoolam ku dul suñ borom subhanahu wa moo tax mu wax ne innama yuwaffa saabirina ajrahum bi ci hisab naka noonu mbokk yi bokk na ci euh, ngëneelu muñ ba tey an allaha taala yàlla mu kawe mi dafa tagg way muñi ci waxam ji mu wax ne wassaabirina fi lbasaai wa dara wa xiina albas ulaika alladina sadaqu wa ulaika mu muttaquun ñi nga xamante ni maanaam bu ñu amee lu baax lu neex ak lu naqar yëpp dañ koy muñ nee na ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoo dëggal teyit ñooy way ragal yi booy set set dëgg dëgg dëgg ku ragal yàlla mooy ñoom naka noonu tamit bokk na ci ngëneelu muñ ba tey woy muñ yi yàlla dafay ànd ak ñoom fu ñu nekk fu ñu mën a nekk yàlla day ànd ak ñoom moo leen di aar moo leen di jubal te moo leen di ndimbale dimbal te it moo leen di ubbi comme ni mu ko waxee moom subhaanahu wa taala inna allaha ma sabirin man yàlla maag way muñi ñoo ànd kon ni ko ah, saaba waxee abu ali daqaq faaza sabirina bi izzi daarayn li annahum naalu min allahi maaya abu ali daqaq dafa wax ne faaza sabirina way muñi taxe nañ ñu laaj ko ne ko waa wooy muñi nu ñu taxee mu ne xanaa bi ay izzi nii eh, eh, tedd ñaari kër yi mooy àdduna ak alaxira li annahum naalu min allah ndax dañoo am ca yàlla maiya ak ànd ndax yàlla nee na na laa maa ñoom ñoo ànd maa leen di dimbale maa leen di sàmm maa leen di wattu te it maa leen di jubal naka noonu tamit muñ day tax suñ borom subhaanahu wa taala sopp jàmbi way muñi ni ko suñ borom subhaanahu wa taala waxe ne wallaahu yuhibbu saabiriin yàlla dafa bëgg way muñi wa min ha fi hada azamu targhib sabri ala albalaa'i wa rida bi bi marril kon yàlla subhaanahu taala dafa dajaleel way muñi ay mbir yu bari ñetti mbir ñetti mbir yoo xam ne dajale lu ko kenn ku dul ñoom ñetti mbir yooyu nag mooy asalaatu minhu alayhim wa rahmatuhu lahum mucc minhu bu ci moom alayhim ñeel leen ñoom wa rahmatuhu ak yërmande lahum ñeel leen wa hidaayati ak jël jubal leen yaahum ñoom ñoom rek ñoo am loolu yàlla dajale ne ñeer wooy mu ñi ñetti mbir yi boo xam ne dajale joxu kenn mooy asalaatu minhu alayhim wa rahmatuhu mooy mucc ak xeewal ñel leen ak yërmande ak jub wa basiri alladina ida wa basiri alladina ida asaabanu musibatun qaalu inna lillahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee na bégalel way muñ yi nga xam ne su leen musiba gaare wa rahmatun ak yërmande ulaayika te gaa yooyu mooy way muñ yooyu humul muhtadun mooy ñooy ñu jóg wa minhu aydan bokk na ci ba tey ci ngëneeli muñ ba tey yàlla dafa wékk mbégte ak texe ci àdduna ak alaxira ngir ñi nga xam ci muñ fa qala allahu taala ya ayyuha alladina amanu yàlla dafa aj ngañaay ak ndimbal ci wa wa ci ragal yàlla ka xawli taala bala in tasbiru wa tattaqu wa yaatukum min fawrihim hada yumditkum bi xamsati alaafin min almalayika musawamin wa lihada qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam ma al farj ma daal ndimbal daal mi ngi ci muñ wal farju eh, ma al karb moog njàqare ñu ànd suñ borom bu tegee naq njaqare boo ko muñee rek eh, mbégte moo ci tegu wa inna ma al usri yusra lu jafe lu nekk ak yomb moo ci tege rawaahu alxatibu fi taarix naka noonu ba tey bokk na ca yi nga xam ne bokk na ci euh, ngëneeli muñ ba tey min azami anna sabra min azami niam muñ mooy euh, xéewal yi gën a màgg min indi la boo xam ne dafa jóge suñ borom alal abdi ci jaam bi xaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wa man yatasabar yasbiruhu llah wa ma ata ahadun ata an xayran wa awsaa joxul kenn benn julit euh, lu lu gën aw yiw wala lu gën a yaatu muñ rawahu al buxaari wa muslim buxaari ak muslim ñoo solo xadis bi